génn dem ah Kajo seede nga loolu lañ fi def. loolu loolu noonu lañ mel de. <laughs> ay député yi politiciens yëpp noonu la sénégalais la ñuy nax rek. <laughs> alors ñu dalal euh, sunu charmante dame yi nga xamante ni ñëw nañu rejoindre ñu ci plateau bi Keina daal di ne ñëw Keina ñu ngi leen nuyu. Aïcha fay naa la. noo def. ça va. yaa ngi ci jàmm alhamdulilah. bien ñu bàyyi la ñu naa leen bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen laa fekk ci euh, plateau bi tey gis naa ne plateau bi xawoon na tàng tuuti <laughs> ak politiciens yi <laughs> donc di leen jaajëfal bu baax a baax aussi di nuyu nos très chers téléspectateurs de la 7TV mbégteet bànneex la ñuy am di jàkkaarloo yéen saa su ne Aïcha comme tous les lundis léegi léegi rek dañuy daal di luxe beauté bien-être et tout ce qui concerne la mode. ayca dinañ ci ñëw ci kanam ànd ci Kéna mais ñu dalal Asia mu ci plateau bi Asia ñu lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay Aïcha. naka suba si suba saa yi. tu as la forme. waaw ça va alhamdulilah. yaa Amadou. Aïcha Diaby. <laughs> li nga wax sànq rek laay rey politiciens yi. Hmm. ñoom ñëpp a far.

xam ne mooy Mouhamadou Lamine Sarr président de l'ordre des experts immobiliers du Sénégal pour mu ñëw ay charge ci li nga xam ne mooy mesures yi xam ne président jël na ko décret la jël à la place d'une loi lan mooy changement bi lan mooy modification yi yan effet lay am ci li nga xam mooy les Sénégalais donc ñu déglu ko mu ñëw ci vraiment nouveauté bi ak par rapport ak décret bi. xam les prises de décision c'est le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire loi bi loi bi c'est par l'Assemblée nationale avec une procédure de discussion et tout ça ensuite euh, le décret c'est une c'est exécutif qui prend la décision maintenant le gouvernement a le choix de prendre un l'Assemblée gën a développer pour gën a prendre sous forme réglementaire mais loolu dafa bokk ci euh, ñoom ay décisions yu jël yoo xam ne ñoom ñoo xam pourquoi ça c' est des ça c' des pouvoirs peut être que euh, li mu ci xam mooy le euh, en général on le prend quand la mesure est urgente et qu'on a besoin de le prendre tout de suite pour faire face une situation exceptionnelle qui nécessite de raccourcir les délais. À mhm. nationale, il y a des débats, il y a des délibérations, il y a des choses, la procédure a, qui que le, le, le, pouvoir exécutif a décidé pour la baisse mhm. non pas d'aller vers la loi, mais d'aller vers le décret. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le décret mononec en opposition avec la loi. C'est-à-dire que on peut dire le en conformité avec les lois ah, Parce qu'il y a toujours un, un, une cohérence de la mi ngi mi ngi noonu ki nga xam ne mooy Mouhamed Lamine Sarr président de l'ordre des experts immobiliers nga xam ne ECHA bokkoon na ci commission bi bokkoon na ci li nga xam ne mooy décret bi bañ koy bañ koy defar yépp nee na booy xool loi ak règlement amul benn différence boo xam ne moo si nekk ñaar yépp ay acte juridique la yoo xam ne dafa am effet erga omnes maanaam dañ koy appliquer à la population sénégalaise li nga xam ne mooy changement bi nga xam ne moo ci am bu ndaw a ndaw a ndaw c'est-à-dire loi dafay jël plus de plus de temps c'est-à-dire dafay am débat en plénière balaa ñu koy balaa ñu koy voter dañoo nekkoon nag dans l'urgence le président de la République dafa bëggoon soulager un peu li nga xam ne mooy les locataires parce que location bi métti woon na trop moo tax mu jël un décret c'est-à-dire mu gën gaaw ñu gën ko mën a gaaw a donc loolu rek mooy modification moo am na ci après nag juriste yi ñu ngi doon wax constitutionnel pour ñu délégaliser li waawu dem pour mu am compétence su jël li nga xam ne décret ci anam bi ay alors du Mhm. et elle se pose la question quelle est la différence entre loi ak décret. Mhm. loi ak décret booy xool ñaari acte règlement acte juridique la benn bi acte réglementaire c'est-à-dire gouvernement bi moo koy jël c'est le président la république moo koy moo koy jël beneen bi assemblée nationale moo koy jël amul nag différence am na nag hiérarchie boo xam ne moo ci am c'est-à-dire loi mooy primer sur décret tey jii bu ñuy jël décret décret bi dafay respecter li nga xam ne mooy la mooy la loi mais ñaar yëpp ay acte juridique la yoo xam dafa am effet bu ñu ko jëlee dañ koy appliquer à tous les sénégalais benn bi président de la république moo koy jël le décret acte réglementaire la loi bi assemblée nationale moo koy moo koy jël maintenant nag loi mooy primer un peu sur sur décret cest dire loi bi mooy nekk ci kaw décret bi nekk ci suuf décret bi dafa war a respecter li nga xam ne mooy la loi Aïcha Diaby Amadou est-ce que réglementation du loyer bi am na pertinence parce que bu ñu xoo ñëwaat bu ñu retourner woon nañ fi euh, loyer bi ñëwaat nañu aussi wàññiwaat euh, loyer bi est que am na pertinence. booy xool c'est la même chose booy li nga xam ne moom lañ defoon moom lañ defaat nii nii en parce que dafa amoon li nga xam mooy réduction donc du prix des loyers ñu def ko ci ay pourcentage parce que dinaa ñëwaat sax un peu en arrière 2014 lan la ñu lan la donc ay tranches approche lañ andi woon dañ ne woon bu fekkee loyer yi nga xam ne inférieur à cent cinquante mille vingt neuf pour cent lañ ci wàññi bu fekkee entre cent cinquante mille ak li nga xam ne mooy cinq cent mille ñu ne quatorze pour cent lañ ci wàññi bu supérieur li nga xam ne mooy mille ñu ne quatre pour cent lañ ci wàññi donc loolu lañ jëlaat defaat ko actuellement parce que actuellement c'est la même chose dañ ne les loyers yi nga xam ne donc dafa inférieur à 300000 20 pour cent lañ ci wàññi bu fekkee en 300000 ak 500000 10 pour cent lañ ci wàññi bu fekkee et plus ñu ne 5 pour cent lañ ci wàññi kon boo gis nga ne amul différence donc ci ay fourchette ci ay pourcentage la ñu nekk ba ba tey donc kon boog à chaque fois comme li ñuy wax dafay dafay ñëwaat kon boog li nga xam ne moom lañ jël ay solution yoo xam ne c'est temporaire c'est-à-dire président de la mm-hmm. solution bi à l'instant te jëloon na ko en 2014 sottiwul jëlaat na ko en 2013 je pense que ne problème yi nga xam ne amoon nañ ko en 2014 moom la amaat dañoo war a xool leneen lu ñuy def yeneen solution yoo yoo xam ne moo gën di réduire li nga xam ne mooy location bi ci ay pourcentage à chaque à chaque fois. Asia. Euh, waaw euh, Amadou euh, est-ce que gisoon ni aussi avant ñuy régler li nga xamante ne problème location bi. Mm. duñu régler li nga xamante ne mooy problème suuf si. loolu mooy problème bi c'est-à-dire comme ni ma ko waxee léegi booy xool li nga xam mooy réduction bi nga xam moom la ñu def donc ay solution temporaire kese la c'est-à-dire dañ koy jël pour un instant T après problème yi daf ñuy daf ñuy dab mm-hmm. ne loyer yi dafa dafa cher mooy inflation bi li wax suuf si dafa cher trop te suuf si bu cher dafay répercuté wu ci li nga xam mooy loyer parce que immobilier la ko luye ko Aïcha Dia bi mm. def seen expertise kon boog il faudra ñu régler li nga xam moom inflation bi je pense que loolu mooy la cause principale bu ñu bëggee régler li nga xam mooy loyer bi maintenant nag liggéey la boo xam ne du liggéey boo xam ne dañ koy def tey wala ñu def ko suba donc dafay am benn processus boo xam ne daf koy jaar moo tax ñu jël lii donc je pense que ni dinañ dégluwaat sax sunu invité tey Mouhamed Lamine Sarr président de l'ordre des experts immobiliers mu wax ñu ne vraiment la cause principale ci nga war a régler on commet l'erreur d'apprécier le loyer par rapport à la construction. Or, boo seetee le facteur bi nga xam ne mooy impacté le plus tey c' est pas la construction c' est le terrain. c' est le terrain. terrain ñoo yokku ñoo yokku plus vite que la construction. et terrain bi mooy impacté sur la valeur de la maison. aujourd'hui quand tu viens sur la VDN ñu ne la un million le mètre carré sur la la terre tu achètes un terrain à 100 millions nga jël 25 millions pour construire immédiatement la maison coûte 125 millions donc le problème le problème ce n'est pas la construction c'est la valeur de l'emplacement voilà c'est la valeur de l'emplacement qui est problématique c'est le terrain situé dans certaines zones donc tu as raison de dire et ce que tu dis là c'est tellement vrai xam nga moom la américain yi wax mhm. ne la immobilier c'est trois choses number one location number two location number three location c' est l' emplacement immobilier lu dara loolu emplacement. donc le phénomène du zonage kenn mënu ko occulter kenn mënu ko ignorer dans l' de la valeur des maisons dans la commune parce que loolu mooy la chose la plus essentielle. Aïssia je pense que tontu na la sa question bu ñu régler location bi dañoo war a régler li nga xam mooy inflation foncière bi c'est-à-dire bu ñu bëggee régler location bi du benn point rek la ñuy la ñuy régler donc ensemble la boo xam dañ ko war a régler parce que nga koy dégg fekkee régler wuñ ko tey ji bu fekkee mètre carré bi sur la VDN day jar 1 million donc tey ji ki nga xam dafa jënd terrain ba pare ku jëndee 100 tabax ko donc loolu dafay impact li nga xam ne mooy ci loyer bi donc balaa ñu régler loolu il faudra ñu régler inflation Sénégal amoon na benn loi boo xam ne moom moo doon régler la xam le prix du mètre donc war nañu jëlaat loi boobu noonu gën ko xoolaat balaa ñuy teg li nga xam ne mooy location bi donc bu ñu wàññee je pense que prix du mètre bi moo koy régler donc dina influer un peu ci prix bi te bu influer ci prix bi dina noppal ñun locataires yi ñu doon ay sadia bi mètre jamono ji <laughs> daal dina wàññeeku mètre seer na trop <laughs> mètre seer na trop eh, mètre jamono ji daal dina wàññeeku kajoor gëw ma ko de ah? doy na waar de gëmmu gëmmu suuf laa gis ni suuf day gën di yokk di jëm kanam à chaque fois il faut nag mu maîtriser ko bétal ah il faut ñu maîtriser ko de da ngay xool léegi sax suuf suuf bu njëkk léegi da ngay da da ngay laaj suuf sax ñu ñu ñu ñu wax la njëg boo xam ne peut-être tabax na sax finalement ñetti kër waaw doy sur un terrain des des des millions. doy na waar euh, Amadou. Mm-hmm. xamuñu Sénégal on a un problème de suivi et d'accompagnement. Mm-hmm. c'est-à-dire à chaque fois dañu naan du am problème de suivi et cette fois concernant la baisse du loyer mhm. est-ce que commission bi ñu teg commission bi am na doole pour mën a assurer li nga xamante ni moo di le suivi et l'accompagnement je pense que ni Aïcha commission bi actuellement fi mu fi mu taxawee ni Aïcha amagul doole bi nga xam ne war na mën a gérer location parce que Momar Ndao gis nañ ko muy ci kaw rek <laughs> ma ngay ma ngay wax ma ngay wax fu ne moom mooy président le problème Momar <laughs> Ndao mooy il est juge et partie tamit bu boobaa foofu noonu pour nga pour nga pour nga am benn benn crédibilité bi devant devant yenn euh, partie prenante yi dafay metti parce que il est il est dans dans dans dans le régime il est dans le pouvoir quand même am na ay postes yu mu fay représenté donc tey jii man j'aurais préféré que mu am ku neutre koo xam ne vraiment moom moo neutre bu baax a baax ba ñëpp xam ko pour gérer commission boobu noonu bu boobaa peut-être mën nañu xaar yeneen partisans yëpp ñu mën ci dugal seen loxo mais avec moment ah, ah, waaw xanaa Aïcha di la wax ni vraiment commission ba si dina compliqué parce que Kajoor wax na benn cause mais commission ba si dina compliqué pour mu régler ñaata nit ñoo loué fii ci Sénégal ñaata bailleur ñoo am fii Sénégal donc commission bi nga xam ne moom laa gis nii je pense pas que ni am na assez de pouvoir assez de moyens pour régler li nga xam mooy problème location peut-être nag mën nañ xool nan lañ koy accompagner avec la police avec la gendarmerie donc ak les mairies donc ñu xool nañ leen leen di accompagner mais commission bi kese kese kese parewul pour mën a régler yi nga xam ne mooy problème location parce que moom donc du ko mën a régler location bi nekk na bombe boo xam ne fii ci Sénégal je pense que ni benn commission kese mënu ko mënu ko régler mais am na nag vraiment luñ ci ci mën a njott parce que bu 2014 amul woon suivi parce que amul woon commission bi am na commission boo xam ne topp nañ ko si donc gis nañ ne ñoom problème yi amoon jàngat nañ ci moo tax bii ñu ànd commission mais commission je pense que dañ ko war a gën a mën a jox ko les pleins pouvoirs pour mu mën a régler problème location accompagné wee bu bàkk bi noppee rek ñu dikkat ci plateau bi ànd ak Asia dans la rubrique intitulée les buzz du net